jërëjëf jërëjëf mbokku téléspectateur yu Bantamba TV ñu sant yàlla bu baax ñu julli ci yonent bi ñu ñëwaat ñu ñëwaat ginnaaw bu ñu sante yàlla ndaxte bu ñu leen joxee rendez-vous ajjuma bii di ñëw ajjuma bii di ñëw ñu toog jàkkaarloo waat ak yéen yàlla ànd ci kooku dañ ciy gërëm suñu boroom am na ñu fi nekkoon ajjuma yi paase te tey jii nekkatuñ fi loolu yàlla mooy dogal lépp ci dogal sunu borom la nañ koy sant di ko gërëm waaw di ñaan di ñaan nag di dolli ay ñaan mu defal nu jàmm ju bari def ko ci réew mi def ko ci doomu réew mi ak fépp doomu réew mi ne ci àddina ñu jox leen loxo te gërëm leen bu baax mbokk yi mbokk yi dañuy ñëw léegi ci ci ci péncum làmb dañuy ñëw installation CNG tey la woon ah dinañ ci ñëw dinañu ñëw àllarba bii passé amoon na làmb tey dinañ ñëw ci lu bari ci mutlu Lo ak Siteu dinañ ñëw ci rëg-rëg ak Boy ñaata xam ngeen ni rëg-rëg fi ñu toll nii mi ngi waajal ab combat bu bokkul ak làmb muy MMA boo xamante ne nii xale yi léegi ñu ngi koy waaj di tàmm waaye tey muy daje koo xamante ne nii ñaani doomi Sénégal xajul ci moom na ñëpp ñaan ndax rëg-rëg am ndam ndam li ñëw senegal balaa ñoo dugg ci pénc mi rek ñu dalal ñu dalal ki nga xam ne moo di Seydina Ousmane njaay borom naaru góor ñu waxtaan ak moom waxtaan ak moom ci diine waxtaan ak moom ci xam-xam ndaxte ci aw xuraan am na ci yoo xamante ni ni ngëneel li ci ne aw xuraan lépp sax ngëneel yi ci ne yépp ñun ñun ñii nga xam ne danoo tuuti xam-xam xamagun ko te naa Seydina Ousmane dama bëgg indi ko ci Fatiha maanaam bisimilahi rahmaani rahim ba mu jeex lanu bëgg mu ñëw ak ngëneel yi nga xam ne moo ci ne li mu mën a faj li ci ay médicament sunu borom def ko ci moo xam ci wér yaram moo xam ci ñàkk wir moo xam ci xiif moo xam ci ci sonn moo xam ci ñàkk ci lépp tey jii Seydina Ousmane danoo bëgg ñu mu ñëw ak ñun ci loolu ci Fatiha Seydina Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci Bantamba TV di la nuyu bisimilah. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah allazi yushhiduna lahu alawalima bilfardaniyati fawqaaniyati samadaaniyati alqayumiyati nasaluhu tabaraka wa taala an yaxmasana bi nuuri anwaarihi wa yamlaa qulubana bil asraari wal maarifi innahu ala kulli cheyin qadir yaa man bi yadihi malakutu kulli cheyin wa ilayhi turjaun wasalaatu wasalaamu ala afdali xalqillah muhammad ibni abdillah rasulillah wa ala alihi wa ashabi alkiram tayyibin attahirin asbikaay ñuy santati yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ziare waay di ñaanal ñëpp jàmm di sàkku ci ñoom ñaan réew mi yàlla def fi tawfiix taxawu mag ñi bi barakat seedil wujud ñoom mbégte bu baax a baax teewaat ak yéen ci jotaay bu mel nii ndax li may wax toujours àddina moom yaa ngi ci waar wi rek te koo xam ne nag moom dagal nañ la ay tool nelaw fii mooy say tool nga dem ba egg sa tool ga amoo loo def lu dul dara di tëdd sa tëdd sa ron garab ga di nelaw waxtu seet si tool bi jotee danañ la fa dàqee ak ay at wala lu métti dana la fa dal kon képp koo xam ne yaa ngi si tool bi rek fa nga manee tam waree la fa fexeel def lépp loo xamante ni moom moom moo la war as bi kaay nga laaj ma nag loo xamante ni lu am doole loolu lu rëy mooy fatihatul kitab moom faataatul kitaab lu bari ay tur la da gis ñoo xam ne sax dañ koy tuddee umul kitaab waaye danañ koy tuddee faatihatul quran ndax lan lim lim ubbi al waaye danañ koy tuddee umul quran danañ koy tuddee sabaul mathani waaye danañ koy tudde al quranul azim moom faatihatul kitaab nag jibril daf doon wax ne man xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama leen a yërëm <clears throat> ndax mbugal mi ma gis yàlla yore ak doole jeeg yépp man daal yërëm naa leen waaye nee na xam nga yërëm gi kañ la deñ mooy keroog bi bi bi fatihatul kitab wàccee ndax dafay mel ni koo xamante ni fatihatul kitab sidna Ali day wax ne dafa nekk loo xam ne benn saaru ndàmm la maam loo xam ne boo bëggee comprendre moom mooy loo xam ne dynamo bi nga xam ne mooy doxal lépp lu nekk ci wàllu baatin wala ci alquran wala ci àddina bi nee na nag yàlla dafa am fu mu ko dencoon mu ngi mel ni tey yenn saa kenn xëy nit jox la 10 000 suba mu jox la 20 000 suba mu bindal la chèque boo xam ne 50 000 la daf lay sonal. mais mu xëy xëy rek defal la benn carte ne la compte baa ngi noonu lu la neex retiré maanaam jàngal la ni ñuy moo gën ñu leen may jën noonu la yàlla def ak ñun si Fatiha. Fatiha nekk loo xam ne benn carte bancaire la boo xam ne boo ko amee lépp loo soxla ci sa àddina nag mën nga koo retiré teew ko. nga xamante ni moom lay euh, moom juróom-ñaari aaya moo ci nekk mhm. léegi looloo tax juróom-ñaari buntu yi nga xamante ni dafa nekk ci ci ci ci safara boo dee jàng fatiha maanaam waxtu alaxira taxawee leneen na maqe wala mbiri nar a doy waar aaya bu nekk day taxaw si benn porte ne ko du fi amee kii kan mos na maa jàng tey man maa ko fay ramm du daj fii lu dul jàmm ak xéewal na mootu dem li nga xamante ni moom mooy aljana te loolu noonu si jàng fatiha rek nga koy moo tax mën a nekk ci àddina ak loo mën a def yàlla buur bu baax la moom te moom daara sëfu ko del jàng faatiha di jéggaloo rek moom ku baax la mm-hmm. ba defee loo tax nga dégg mu wax la ci alquran ne la wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsum mm-hmm. ku nekk dafay am benn porte bu mu taxawee keroog di la défendre loolu lu lu lu baax la nekk na saar woo xam boo ko dee jàng maanaam saa feebar buy wàll comme yi fi xewoon passé mhm. wala yeneen yu dul yooyu da nga ciy mucc lépp loo xam ne lu jëm ci mhm. wàllu ay hépatique wala yeneen yu danger yi mhm. cancer yeneen ak yeneen yëpp boo ko dee jàng yàlla dañ leen dañ leen si musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ne fatihatul kitab wa ayatul kursi laa yaqra'uhumaa abdun fi daarihi fa tusibuhum dalika al yawmu aynu insin wala jinni mu ne yéemu na ci koo xamante ni maanaam koo xamante ni daa xëy rek jàng ci ab dëkk waxuma la kër benn faatiya benn ayatul kursi ba bay timis di jot wala heure boobu di ñëwaat du bët du njabar du liggéey du dara loo xamante ni dana la daj te loolu lu yomb la doo ci fay dara doo dem ñu naan la liyeeg wala laa nangamam man daal li ma gëm mooy nit ñi nañ delluwaat ci alquran delluwaat ci sunna dama lay ñëw nag ci ci ci ci gàttal ñu xam faatiya lan la man ak lu muy def ak loo xamante ni attan na ko moom faatiyatul kitaab fatatul kitab bëri na loo xam ne sonal na nit ñi tey xale yi neexuñ xel wala ñuy fàtte wala dara lu gën a rëy kiis si wàllu fatatul kitab amut kooku dinañ si ñëw waaye feebar yi nga xamante ni bëri na lépp lu xam dafa jëm ci wàllu xëccoo wala tey wàllu bayara wala noob ci wàllu ci wàllu fatatul kitab dinañ si ñëw benn par benn lu ko gën a rëy wala lu ko ëpp doole ñun gisuñ ko si koo xam ne damay nekk si ay jafe-jafe wala ci wàllu kosoog yu noonu fatatul kitab man na nga jàkkaarloo jigéen léegi-léegi soppi ko góor loolu fàtteetu kitaab mën na ko ca ca ca façon yooyu yu gën a ndaw nga xam ne ci xeetu xam-xam bu ñëw wax fa la maa tabayyana la et ca gën a ndaw moom ngay gis yenn yenn di ko xam di dajeeg nit ñi di leen nuyu di yóbbu seen awra yi maanaam dama la wax ne la faateetul kitaab toll na ci degré boo xamante nii maanaam man ngaa jàkkaarloo jigéen léegi soppi ko góor def ko góor waaw si ngay gis am na ñoo xam ne ci la ñuy jaar tey fi nii nit tooñ leen wala dara ñu def ko loo xamante nii day gis reegal rek du dagg Mm-hmm. si ngay gis ñoo xamante ni dañ leen ci def loo xam ne dañuy dem ba seen bureau toog seen bët yi di ful duñ gis ni muy defee noonu la ma mënee andi ci beneen côté bi maanaam fàttalu kitaab ci mën na bato di daw ba ci digg géej gi nga am loo jàng bato bi taxaw dootu doxati wala mu suux fàttalu kitaab mën na avion nii di naaw nga jàng ko ñu fàddante wala wala wala mu daanoo loolu soriwut boo dee xool ayatullah al xumayni bi nga xam ne xeexam ak ñoom amérique nga xam ne moom dafa toog si ismullah al azam si ismul jalaal ñii la doon fàddalante seen kii ba ñoom ñëpp ñu xam ne carrément lii nii baatin la moo tax sénégal fu mu toll afrique fu mu toll mbir mi jaxasoo na lëj na waaye man xam naa loo xam ne du lu nit lu nekk nit nit ku nekk loo xam nga man koo wax waaye man xam naa ne nit dund li ma xam nit dund na téeméeri at te jéewoo ko léegi nag yàlla dafa wax ne inna lillahi xalqan xalaqahum li qadaai xawaaiji nnaasi dafa am jaam yoo xam ne yàlla daf leen bind rek pour ñu faj ajooy doomu aadama yi te fii bi nga fii ñëw andi woo dara boo dee dee tamit doo yóbbaale dara lu dul jëf ju baax wala nit koo xam ne dimbale nga ko nga dem fekk ko sa bàmmeel bu nekkoon ci keneen yow boo ko dee ut doo bëgg mu jafe bu nekkee ci war nga fexe ba du ba du ba du ba du ba du jafe mhm. sifaatul kitaab nga doon gis nit di jaar toog toor gi yónnee benn saaru ngalal muy xal muy muy muy xala wala yu mel noonu wala kortu wala nga gis benn dëkk am ku fa tooñ nit wala dara ba muy wan ginnaaw dëkk ba gis nga am na looy jàng boole koog suuf si boo demee ba wan ginnaaw dëkk bi sànn ko mu te féetee la ginnaaw mhm. foo jaar dëkk bi dafay tàkk ba jeex loolu ba mhm. léegi mu ngi am am na ñoo xam ne nag yoo yóoruwuñ xooli julli ñu ngi defal moo tax danga war a xam baatin xam asraar xam secret nga xam lii nii no yonent bi dafay wax ne alma kullu shay'in afdalu min jahli maanaam jàngoro boo mën a gis nga xam ko moo gën nga réeree ko léegi xam ko dina tax nga xam anti bi lan la ba du la dal wala bu la dalee nga mën a xam fi nga xamante ni foofu ngay jaar lépp nag loo xam ne moom ci wàllu wërsëg la wala wàllu protection wala loolu kooku fàttatu kitaab moo ci toog danga dégg nag ñuy lim yu bëri moom dafa nekk loo xamante ni sept la nekk vingt neuf mots waaye nekk cent quarante trois si lettre alphabet hmm. léegi nag bisimilah rahmaani rahim moom dafay nekk mille vingt six waaye da nga gis ñoo xam ne dañ lay wax ne la sept cent quatre la su boobaa trois euh, signe bi du au lieu que ñu koy def trois cent waaye dañ koy def li nga xamante ni moom mooy soixante. Hmm. même tamit fatihatul kitab su fekkee ne da ngaa jël fatihatul kitab commencement ba ba pegg ba. te baamtuwoo benn xaraf su boobaa moom mooy nekk vingt 21 xaraf léegi nag faatihatul kitaab dafa am lu ñuy tuddee maqsad da ngay dégg ñu ne allahumma inni nawaytu an ataqarraba ilayka bi salaatil fatiha wala ñu ne allahumma inni nawaytu an atluba fatihatul kitaab wa kada wa kada comme ni nga koy jàngee nekk na loo xamante ni bomb la boo kasee ba téye maanaam yàlla rek moo nekk yàlla moom mooy def mooy dinni waaye dafa am xam-xam yoo xam ne bu la ko yàlla xasalee ba xamal daf laa jox cëram maanaam loo bëgg mu nekk loo bëgg def nga def ko waaye nag yàlla duut ku ne rek lay toog dara jox la benn xam-xamam bu xamee ne yow da ngay weer lii wala yow yàq moo la tax a jóg wala dara am na yoo xamante ni bu doon àddina bi di dem ba ba faw du ko jox ci biir fatihatul kitaab maanaam su fekkee ne maanaam nit ki xam nga dafa am jamono tey dafa doy waar yenn saa nga toog toog rek am benn mission dugg ci àll bi wala sa kër ñu yónnee la benn jaan wala dara mu nga toog foo xam ne mosoo faa gis jaan nga toog toog rek gis fa fekk luñ la yónnee la ma ne lay ñëw matt wala nga si lu garaaw kon dama lay wax ne la am na yoo xam ne il faut que ab jullit ab taalibe ab jullit ngàndaayoo ko bisimilah rahmaani rahim jëfewut da ngay fexe ba toujours yow na lay xorom di jege koo xamante ni da ngaa tombeek mën nga doon dox marché sax nga daje koo xam jiit moo ko fet wala jaan wala dara da ngay jàng faatihatul da ngay jël ndox nga def ci tuuti xorom. Mhm. jàng 21 bisimilah rahmaani rahim ak 11. fatihatul kiram mooy alhamdulilahi rabbil alamin waaw basmala ak ak ak kii nii fatihatul kiram mooy alhamdulilahi rabbil alamin ba mu jeex hmm. boo ko jàngee onze baax na boo ko jàngee six baax na nga tafli ko si ndox mi boo koy naan rek lugg ko dangat ji dafay wàcc te loolu noonu yow mi koy lugg yow mi koy lugg yow yaa koy jàng naan yaa non yaa koy jàng tafli ko ci ndox mi jox ko mu naan jox ko mu naan waaw léegi nag maanaam su fekkee ne ñi nga xamante nii maanaam kanaa xamoo gis nga baatin fi mu toll nii ci wàllu kurus ci wàllu ismulaay lansam ci wàllu turu yàlla képp ku amul wéeruwaay bu mel noonu yaa ngi nax sa bopp yaa ngi da ngay sonn ba sonn gis nga nit surtout ñii seen milieu bi nga xam dañuy internet nangam yu mel noonu lu bëri man nga internet bay bëgg dee def lu nekk naan ay vitamine benn jour mooy jot ñu yónnee la benn affaire kattan gi wala nga jàkkaarloog mbër sa fidu yëpp dem benn doole dootu fa nekkati mhm. su fekkee ne da nga bëgg loolu du la dal fexeel bët bu set boo ko muntu def wala semaine bu jot nga liggéey ko nga zikkar 448 si bisimilah rahmaani rahim. képp koo tampowanteeg dana jàpp ne ñaar fukki góor ñoo ñoo ñoo ñoo tinkanteeg moom loolu nag ñi nga xamante ne am nañ sekkare wala am ay mbir wala ñu jaxasoog ñi nga xamante ni mbiri baatin lañ ñoom gis nañ li ñuy def ci géew bi yow da nga daje ñoom sax nga jàpp ne kii du nit ki nga xamante ni moom laa xamoon bu dee nag 500 moom. si wàllu sa njaboot fu mën a nekk ci àddina wala sa alal da nga koo denc wala nga bëggee dara bu la yàqal boo ko dee jàng rek da ngay am dangay ngay mucc doo am benn jafe-jafe léegi nag mm-hmm. ma ñëw ci dëggi dëggi dëggi li nga xamante ni moom mooy faatihatul kitaab xaaj bi kay dafa am fu réew mi toll foo xamante ni fu doy waar ku mm-hmm. bëree ñu bëree ku bëreewul ñu bëree daanu sa kaw mm-hmm. dama wax sànq ne la faatihatul kitaab dangay gis koo xamante ni dafay mémoire bu baax la am jàng am ay diplôme am lu nekk mais day xëy xëy rek ñu rek ko dootu xamante dara loolu lay arab di tuddee as salbu dana am ci mag ñi balañ koo daan def ñoom nag mooy koo xamante ni daa amee xam-xam di ci loraate wala muy jaay ay affaire wala nangam ak nangam fii la ñuy toog la ñuy toog jàng la ñuy jàng dootu xamante dara comme yow mu téye benn téléphone rek euh, formanté ko maanaam téléphone bi dara dootu si nekk. Mm-hmm. baatin yooyu noonu dafa am. léegi wax naa la tamit ci wàllu noob. gis nga su fekkee ne dafa am ganaar boo ko reyee si jox ba dafay am benn dugub bu fa des dugub boobu noonu ngay jël en même temps jox boobu noonu benn saaru raakool lu mel ni butil la nga jël ko wala ci butitu ganaar bi dugub boobu ngay jël di jàng di dugal di jàng di dugal sa alaali muhammad wa alaali muhammad xay su nakka tarjum marjum laa la jum la raj fas bëggal loo mën a doon na la nit ki wan ginnaaw na la ameel alal na la nangam wala am na ñoo xam ne nit moo dugg si diggante ñaar ñu bëggante bay bëgg dee rek mu mu dëddale leen wala koo xamante ne dañ la dëddalee carrément yow pour nga am teranga ji wala pour nga am kayit bi wala pour nga am nangam ak nangam su fekkee da nga koo fi nga xamante ni foofu nga ko war a jaarale boo ci paree rek nit kooku dootu amati benn jafe-jafe ci côté boobu noonu mhm. am na ci loo xamante ni su fekkee ne xale dafa juddu bees fexeel ba nga bind 19 19 bisimilah rahmaani rahiim nga xooj ko sam-sam jox si si biberon docteur yi leen di wax ne xale bum naan ndox te a rey seen doom yi de yàlla moo ëpp ñëpp xam-xam te moom moo gën a bind doomu aadama te moom moo gën a xam li gën a baax ci doomu aadama moom moo wax ne dee leen ni nàmpal ñaari at te day leen di jox seen doom yi ndox ñuy naan keneen ku ko bàyyi def lu leen neex yaa ko fa góobe loo ci góobe gar ko àddina bi nag moom daanaka da ngay def lu la neex waaye boo dee. tamit mais mais mais docteur yi. Hmm. bu liir bi di doog a juddu. Hmm. la ñuy tere ñu jox ko mu naan. waaw man bu may wax loolu mooy dafa am yu ma ci gis yoo xamante ne du doon sax période boobu daanaka da nga dem ba sori lool da nga gis koo xam ne boo demee fii ci ci àll bi wala ci ñu bëri dañuy dem ba xale bi dëgër wala ba nga xam ne mu ngi commencé jegaraam sax nga gis dañuy wax ne meew wala dara loolu mënut tee xale bi. ndox daa baax waaw ndox dafa baax yàlla moo wax ne wa naa minal maa'i kulla maanaam. lépp luy dund rek ñun yàlla ñu ngi ko def ci ndox dañ see def loo xamante ni boo ko dee kii rek yàlla daf lay def bu njëkk dañ daan def ay toqantal. Mhm. mooy tax xale yi dafay neexel dafay am barke dafay am nangam ak nangam léegi nag yu bëree bëri soo ko bàyyee loo baa su mag ñi lañ amoon rek yow doon dootoo yow dootoo ko amati léegi nag ci biir loolu dafa am lu ñu tuddee maanaam vraiment tabayyana dafa am juróom benn fukk ci ci ci zulmaani am juróom benn fukki bunt ci nuraani yi donte am na yoo xam ne si jamono ji doo ko bëgg di ko waxtaanee ndax fi jamono toll waaye dama lay xamal ne la jamono ji képp koo xamante ni yàlla dafa laa nattu nga nekk ci ay jafe-jafe wala ay tartar wala ay gàllankoor wala dafa am lara loo xamante ni da ngay uti da ngay fexe ba guddi jot maanaam jour alxames ngay oor boo demee ba timis jot rek nga nga nga dogee bàyyil xel euh, xaaj bekaay hmm. maa ngi wax lu doy loo xam ne képp ku yàlla dimbale maanaam yow wërsëg nga bëgg papier nga bëgg tukki nga bëgg lijjantee tabax lu mën a doon da ngay bàyyi ba alxames nga oor boo demee ba timis jot rek nga dogee raisin ak tàndarma boo dogee raisin ak tàndaram nga nga zikkar bismillahi rahmaani rahim ba mu jeex nga yokk ca fatiha ba mu jeex cent vingt et nga dem julli gee dem tëri boo tëddee bul bul am lim maanaam da ngay wax bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim rek ba nga nelaw boo yewoo si subaak ajjuma gi nga jàngaat ko naka noonu cent vingt et fois bu ànd ak fatiha soo paree bind bismillahi rahmaani rahim boo xam ne mu qattaatul xuruuf la maanaam da ngay góor jigéen ngunu ngaana boo xam da nga koy maas tomb ko suqi ko boo xamante ne doo ko maas boo xam du am sadd du am dara boo xamante ni xaraf yi daf koy teqalikoo nga bind ko dugal ko sa loxo loo mën a uti jour boobu noonu dana tegu sa loxo bu fekkoon ne wàllu këyit la maanaam même bu fekkoon sa këyit yi dafa nekk si suuf dana am affaire bu xew ba loola daanoo ba ñuy defaraat këyit yi ba yow sa bos féetee kaw bañ bañ bañ si ñëkku mhm. ak lu man a xew rek mbir moomu dina sotti kooku si bisimilah rahmaani rahim ci fàtteetul kitaab nga ko mën a jaar waaw mais lii nga may wax ni mhm. xam-xam bu rafet bii ngay joxe mhm. ku ko mënul mën naa ñëw ci yow nga defal ko ko waaw bu ñëwee ci man ma dimbale ko waaye dafa am lu may joxe loo xamante nii mën ngaa bañ a ñëw. waaw mën ngaa bañ a ñëw xam lu tax. Hmm. dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañuy oote di sant gis nga seen plateau bi. Hmm. lu rëy a rëy mu ngi ciy xew am na ku ma lay wan ku ma lay wan léegi. ñi nga xam ne yéen a yaroon ci ñu bëree bëree bëree bari kooku rek kenn la ci rek waaye dafa am ñu bari dañ lay sant di la gërëm ndax lan dangaa ngaa joxe nangam ñu def ko feebar boo xam ne fay nañ ci lu ne. Hmm. ñu jaaree ci wér. mbir moo xam ne wala papier wala dara loo xam ne def nañ ci lu nekk mu jafe ñu def yow loo xam ne da nga ko wax ci internet nii rek ñu def ko gis ko. Hmm. moo tax duñ ko bàyyi te ñun li ñuy joxe mbiri mag ñi la waaye dafa nekk loo xamante ni lu yàgg la nit ñi mag ñi def ci ne mu am barke. Hmm. fàtteetul kitaab du caaxaan de xaaj bekaay doomu aadama boo fekkee ne comme dangaa ngaa kii ne rek nga ne ibnu aadama boo ko chiffre alif gi un la ba deux cinq un nun gi cinquante. ñaari alif cekkantu bi ak alif bi bu nekk 1 la del gi del gi 4 la mim gi 40 la boo ko suivre daf lay jox 99. 99 googu lépp loo xamante ni moom mooy dox ci wàllu nuqtatul almi wa sirru takwin foofu lay tënku. léegi nag kooku su fekkee ne yow da nga koo topp bu dee comme tey bëccëg gi boo xoolee 12 heures de temps lay nekk guddi gi 12 heures de temps lay nekk 12 heures de temps yooyu noonu. boo ko bonantee lu mu lay jox vingt quatre. Hmm. léegi da ngay jël bisimilah rahmaani rahim dix neuf xaraf la boo ci yokkee waxtu yu juróomi rek mu nekk vingt quatre heures moo tax boo ko dee jàng lépp loo def ci diggante bi yàlla daf la koy jégal daf la koy baaxal te lépp loo jublu rek da nga ciy réussir. léegi nag guddi douze heures de temps la bëccëg du heures de temps la ñi nga xamante ni ñoo toppoon Seydina Isa mooy xawaari yii ne yi xam ne alquran daf ko tudd douze euh, douze heures de temps la yanab yoon quran bi nga xamante ni maanaam. Moussa dafa dóor etam bi géej gi xar ak beneen bi nga xamante ne ci la juróom juróom euh, fukki xeeti ñaar ci juróom ci beneen Israël la naan ci ba mànd ci jaar fa ñu war a jaar kooku noonu ci ci wàllu ci wàll ci wàllu douze la lay tënku moo tax chiffre douze dafa nekk loo xamante ne lu rëy la mm. looloo tax nga dégg alquran ne fan falaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim mm. mm. waaw fan falaqa fa kaana kullu firqin ka tawdil azim mm-hmm. ci biir loolu noonu comme tey gis nga xaaj bekaay nit ñi képp koo xamante ne jamono ji yaa ngi dem di ñaan wala dara te ki ngay dem maîtriser wul xam-xamu biddiw maîtriser wul chiffre maîtriser wul alquran maîtriser wul misaan maîtriser wul kafu du rajisu du leneen lépp loo xam ne bu jahi la wala abu jadi la wala zunaati maîtriser wu ko yàlla xam ne da ngay sonal sa bopp waaye doo gis dara léegi nag waaw ci biir gis xam naa waxtu bi li ñu ci des bëreetul xam nga question bu am solo mooy mag ñi fonkoon nañu faatitul kitaab ci problème yu bari waaye ñaare daan nañu ko booleeg yëfi wareef mooy gàncax sangam walla garab sangam boo ko booleeg juróom-ñaari bismillahi rahmaani rahim boo ko booleeg nangam ak nangam waaye privilégié woon nañu bismillahi rahmaani rahim ci aajo yu bare bari bari bari bari waaw mooy bismillahi rahmaani rahim mooy li la ci wax noonu gis nga bu yàlla defee nga bàyyi ba yàlla ji di xiin ba xiin wi riddi bu fekkee ne jamono ji daanaka nawet bi jeex na mënoo koo am fexeel ba am ndoxu taw bi rek nga dem ut garab gu ñuy tuddee rand rand da bind vingt yan un faateetul kitaab nga boole koog benn suratul xarab ba mu jeex nga boole koog garab googu noonu lépp loo xamante maanaam koo xamante ni dañ koo yàq wala koo xam ne dafa umu wala dara boo si jaaree yàlla daf lay defal tawfiq maanaam siifur li ma lay wax foofu maanaam mais dafay tënku si ilmu gis nga xaaj bekkaay lépp ci àddina tey maanaam boo ma owoon sama numéro wala nga ma doon lu dugal dara benn chiffre boo ko juumee du ñëw ci man mm-hmm. douze gi mën a doon wax noonu gis nga même laa ilaha illallah boo ko chiffré daf lay jox douze xaraf Muhammadu rasulullah douze xaraf daf lay jox mm-hmm. naka noonu euh, vingt quatre heures yi comme li ma lay expliqué léegi si misaal comme bu ma la mën a jox comme comme fii nii tur ci lay tënku maanaam nit tey boo doon def dara il faut nga xam turam ne gis ku lay jox tur wala nga noobal ko la dara sax force mu jox la tur wala leneen hmm. mais maanaam muy place muy bërëb lu mën a doon bu fekkee ne da nga see bëgg am loo bëgg def pour réussir il faut nga am tour pour il faut mu tënku si chiffre pour chiffre boobu nga comprendre ko mu jege la léegi léegi li la gën a jege yow comme fii nii lan la bantamba boo ko chiffré daf lay jox douze xaraf baagi deux la alif am na foo xam tax du ma fa bëgg dugg parce que. Mm-hmm. bu fa dugg. waaw boo fa duggee ñoom sàmbeen yi ak jaxate jaxate su ko defee. su ko defee émission bi la ñuy seetaan waaw su ko defee xam nga. léegi bu fekkee ne faataatul kitaab gis nga bu fekkee nit ki dafa bëgg ilif lépp lu mu wax ñu def ko. mu am kattan am doole am pouvoir am ci lépp lépp lu mu bëgg soxla ko kooku il faut que mu toog ci ismul jalaal wala mu am koo xamante ni wéeruwaay boo xamante ni dafa toog ci ismul jalaal. âge hmm, balaa ñoo ah, jeex ah, waaw euh, balaa ñoo rek. Hmm, waaw pour kàddu xam na ni bi jeex na. temps bi jeex na waaye ne xam na ni diggante Siteu ak Modou Lo. Hmm. ñaar fukki fan yi manqué na. waaw sëriñ bi. ci wàllu ñaan yàlla. est-ce que tey yéex na ci mbër mi. pour mu am ndam. wala. ba tey mbër mi mën na di ñaan lu am na ñoo xam ne dernière minute. ñaanu dernière minute. am na pour ci ñoom ñaar kenn am ci ndam. bu ma bëgg bu ma bañu toon yàq làmbi jàmbur rek ma wax benn affaire waaye dafa ku nekk lu moomee yonentu. xam nga kii daal yàlla dafa ko jox ñetti mbir. non du mënoo yàq làmb ji. wax maanaam yàlla furla mais xoolal yàqoo làmb ji waxal. Hmm, maanaam yàlla dafa ràññaanee yonent bi subhaana lazi asra bi abdihi laylan bi mu demee ma jox ko ñetti xam-xam benn bi lil amma la comme nooy euh, nooy jullee nooy as joxe asaka nooy jullee nooy jàppoo kooku ñëpp dañ ko war a xam. moo tax mu joxe ko. deuxième bi moom mooy moom mooy xassa mooy comme wàllu asrar wàllu baatin wàllu xam yàlla wàllu yeneen a yeneen dafa am ñu koy xam am ñu ko réeree li ci des mooy ilmul qadri kooku yàlla bi daf ko koo jox pour mu jagoo ko amul droit tey di ko joxe di ko wax waaye nag tey nit bu déplacé ñëw ci yow nga am foo mën a jaar ak moom am loo ko waxal dama lay wax benn affaire bu ndaw mooy ci biir Faatiha bi nga xamante ne ñu ngi si doon waxtaan sànq am na ci gis nga comme vingt et un xaraf la mais fekkee ne da nga koy siifur li ngay njëkk li ngay njëkk am mooy da ngay am na lu ñu tuddee am na yoo xam doo ko mën a wax ci écran mais daal am na loo xamante ni arsata maksuuna alqabidu xata dan zaqiyu boo dinnee wobadun gi dafay des alqays xam ba tur yàlla boobu jeex bu fekkee ne dangaa ngaa dindi te dax bi ci bu ci yokk si ngay amee ahamu sax ak wàllu weesu damay joxe foofu nag benn affaire ñu bëri rey na leen sëñ bi taxawal sëñ hmm, bi hmm. laa laaj. waaw <laughs> sëñ bi ci combat bi sëñ bi ñun dañoo suñuy laaj dañoo bëgg directement. waaw waaw waaw daan la combat Siteu ak Modou Lô. mu am na ku ñu jekku ci ñaan yàlla wees na ci waaw ak boo ak lan la la sama borom wan. c' est ci combat boobu man xam naa ñaankatu yàlla nga ci faaxatan mu bardan léegi loo loo ci gis. li ma mën a xamal nit ñi daal mooy képp koo xam ne yaa ngi dem ci combat boobu su fekkee bëgg ngaa ñibb si ak jàmm na nga bind allahu muhammadu nga séparé ko benn bi nga bàyyi ko ci kër gi benn bi nga yóbbaale ko da nga ñëwaat si jàmm bu ma waxee loolu te ñu ma xam yàgg maa siifur danañ xam fu may waxee danañ xam ne bis boobu du wet waaye waaw sëñ bi ñu ngi lay gërëm ci wàllu kurus ak xaaral xaaral ñu ngi lay gërëm bu baax di la mm. sant ndaxte kàddu gi macha allah alhamdulilah yaakaar naa ne tey jàng nañu lu bari ci mm-hmm. Ah, di la ci gërëm. Mm. ah mu doon combat boo xam ne le lay am. Mm. kàddu bu mujj bi lan lay doon. sant yàlla julli si yonent bi ñu delluwaat rek ci ci ci mbir maam yi ci wàllu baatin ci wàllu asraar képp koo xamante ni da ngaa jiitu kenn nga yërëm ko jàppale ko képp xale yi tamit respecté mag ñi réew mi. yàlla def jàmm ak tawfiix ak taysiir am na yoo xam ne xajut ci écran hmm. xajut ci benn émission waaye képp koo xam ne dugg nga si internet nga tàpp na Ousmane lépp loo bëgg jëriñoo wala nga bëgg koo xam su boobaa di ko di nga ko gis dina leen ñaanal yàlla di leen taxaw wa maa ala rasuli illa al balaax wa ma tawfiq numéro numéro téléphone baa ngi noonu ngeen di jàkkaar lool képp koo xam ne soxla nga Seydina Ousmane mën nga ko woo ci 76 019 19 19 78 582 64 64. 64 54. 64 54. waaw yooyu mooy numéro yi nga xam ne ci lañ ko mën a jotee. ah ñu ngi koy gërëm di ko sant ni tuut mbokk yi ñu ñëw ci làmb ji invité nañu waa Kër Modou Lo. invité nañu Assane Ndiaye promoteur mu ñëw wax ci làmb dimanche ji nga xamante mu am diggante Moussa Ndoye yi ak euh, mbay guy gi vingt ans yi nga Assane Ndiaye def ci biir làmb ñu waxtaan ci lu bare ba pare nag Siteu Modou Lo et Boy Niang ak rëg-rëg te ngeen ñaanal rëg-rëg ndaxte tey dafay bëri dina ñëwit ci làmb ji nga xamante ni am waa day xeex MMA dinañ ñëwit ci làmb ji amoon keroog àllarba ñu xool xale yi fu nu toll ci làmb mbokk yi léegi ni si tuut penc ci Bantamba TV